bi seen yaay gaañoo mhm. dañu jël seen seen yaay denc ko ci wetu mhm. euh, fami ba leen manam famille bi nga xamni ñoo ut seen paak teg ko fa mhm. mais duguluñ ko ci biir taw bi dem tukki mais dañu xey suba ñew fekk ñu toj mir ba boole seen yaay ci fale nga xamni bokku ci woon boy bi ñew jóge voyage daal ni ku def li ñu ko diwo ko def mun ko waru ko won def parce suñu yaay fi denc bala nga ko def waru nga ñoo tag ut ay grillage ben grillage séparé ko defar yaay defar yaay bam jek mu bayiko fa mais ciow lu jóg ne mu nga xamni dañu mëna toj toj affaire bi bay bëgg sul li maire ya histoire bu tang la lay wax ni fan la lolu avec des preuves mi preuve yaa ngi fii nii. fan la fan la lolu euh way ban quartier la nañ ko tek après. demal après ñu xol waaw dégg waaw man de sama bàmmeelu yaay mom lañu dem profaner ko. profaner tojot ko. de saccagé ko. té xawma lu sabab. lii ñu def ni lu sabab. ñu dem ci sama bàmmeel yaay bi toj ko ni ñu ko def du nekkul kenn lu dul sama rakku papa sama rakku papa bi ma jur sama rakku papa bi ma jur doomu baay la ci sama papa mook sama papa bokk ñu ndey ay doomu baay lañu seen ci côté baay ñoom ñoo dem ci sama bàmmeel yaay bi saccagé ko nii sama yaay mi ngi gaañoo en 2005 2005 bi mu gaañoo euh, sama papa da koo jël suul ko foo xam ne foofu lañ suul si seen famille bi mais bi ñu koy suul foofu dañoo jël euh, xam nga famille bu def cadre ba pare léegi sama yaay dañ ko suul taf ko si taf ko si mur bi foofu lañ ko suul léegi nag man bi mu ñibbisee voyage dem fa bi ma ñëwee ma tabax ma tabax si biti bi boo taf ko si kii bi mu doon mu mu taf ko quoi ma tabax ko léegi nag boo ko tabaxee xam nga day am benn xeer benn mur bu leen séparé ak si biir léegi sama rakk côté papa yi dem fa seen papa moom ñu ngi dee quatre-vingt-huit quatre-vingt-huit la seen papa dee ñun fa sen eh, sama ben rakku papa bo xamne ne ñoom ñoo bokk ndey ak ben eh, ak ben doom benn rakku papa bo xamne sama papa moko yoron auto oto ak sen ben mam ak sama mam bu góor sama mam bu jur sama papa ñu ngi leen fa sul léegi ñoom 88 imagine 88 ba 2017 ñom lañu dem fekk lima defaron sama yaay noonu ñu toj ko yokk affaire bi def ko benn comme def ko genre affaire famille ak yooyu quoi boole jël sama yaay boole ko si biir. léegi bi mu ñibbee daaw ñëwee Sénégal ma dem fa bi fa demee ma gis euh, parce que man saa yu ma ñëwoon bakaat la première chose bu may def mooy dem si euh, armée di ziar sama yaay léegi ma demee ma fekk ñu ñu ñu toj ko boole ko def ko benn ak yooyu ma dem sa bàpp na ko kan toj sama bàmmeel yaay bi boole ko tabax ko nii dama maas ma ne ko bien vrai que ni ko defee rafet na mais sama bàmmeel yaay waruñu ko woon toj te laaj ñu ñu ñun parce que suñu bàmmeelu yaay la di ko boole ci biir ak yooyu boobu maa ngi maa ngi préparé parce que xamoon naa famille bi naka la ñu bëgg a def ak yooyu léegi ma ne ko waaw ok man toute façon dinaa delloowaat euh, mbir bi fu ni sama yaay meloon début ba ni ma ko defaree woon dinaa ko delloo delloowaat noonu ak yooyu quoi léegi ma woo maçon ànd fa maçon bi mu fa demee ak maçon bi maçon bi ne ma jarul nga koy tabax nii da ngay jël fer fixé ko ci ñaari coin yi boo ko fixé ci coin nañ xam ne fii nit moo fi tëdd ak yooyu quoi parce que ñoom lii ñu def nii affaire famille lañ ko bëgg def te buñ ko defee affaire famille keneen dina dee si kër gi ñu jël ko suul ko foofu te man loolu laa doon bañ keneen dee ñu jël ko suul ko foofu ou bien ñu jël ko suul ko sa côté yaay léegi nga ñàkk sa bàmmeelu yaay pour éviter lool moo tax ma jël fer bi fixé ko ci ñaari coin yi sans tan ci def mur buñ ci ndiko na def ma jël fer bi rek pour ñu xamné ki nit mo fi teud parce que bamé yi nekkoon ak côté yépp dafa doon commencé raf parce que xalé yi gën ñu fa dem diko ko parce que sama rak yi ño fa daan dem diko ko defaraat légui nak ma ñibbisi ma defar ko noonu ñibbisi bi ma ñibbisee ñoom kenn ci sama rakko papa yi jaar fa dem fa toj ca fer euh, bi mu fa defoon mu dajji ko dindi ko ba pare woo sam papa ne ma waaw fer bi ngeen fi defoon dajji nañ ko dindi ko léegi sam woo xale yi pour ñu dem xool ko xale yi dem fa xooli ko léegi sama rakk bi tiire ay photo yooyu yëpp envoyé man ma woo ma woo ma woo sam papa ne ko ñii lan moo tax ñu dem ci sama bàmmeelu yaay bi li ma li li ma defaroon sama yaay ñu toj ko ñi nag ñu wut problème parce wut nañ ma ci côté bu nekk mënuñu maa jot mais ñi ngi dem ci sama bàmmeel yaay di ko def nii lii nag ñu def nii sama bakkan laa ci teg parce que sama yaay duma ko kafe duma ko kafe koo xam ne dañ koy toroxal di ko toroxal bu muy dund ci kaw suuf nga nekk xale di màgg moom di ko gis jëf yu bon yi ñu koy def di ko ko def di ko ko teg jëf yu bon yu nekk nga ko koy teg nii ba mu génn àdduna au moins ñun bu fekkee ni ñun ñun famille am am na leen loo xam ne def nañ leen ko ñu ñëw wax ñu ko ñu lijjanti ko ñun suñu biir ak ñoom parce ñu ñun ñun xamuñu lañ leen def ba ñu war a mën a am soxoraay yu dem suñu bàmmeel yaay di ko toj. mu ma waaw dinaa lijjanti problème bi ak yooyu sama papa. léegi ma ne ko waaw ok man dinaa la déglu mais de toute façon man yemuma foofu ma woo kenn ci seen magu famille bi nekk Dakar ma woo ko expliqué ko ni jaay la ci ci sama ñoom papa. mu ne ma waaw euh, dimanche la gàmm man ginaa damay dem gàmm su ma demee dinaa dem Thiès su ma demee Thiès dinaa lijjanti problème bi dinaa leen woo